booy bul tijji foofu

nga oh. dëgg abu loo wax. waaw kontaan rek kontaan non yow non yow moom boo waxul kenn du wax. waaw kontaan rek. waaw kontaan gum quoi. waaw ba xam fu ñu jëm. lii moom ñun ñëpp surprise la doon si ñun. waaw. waaw. yaakaar naa su ma mënee wax mooy sama émission bu ma njëkk a def wasaare bi ma ñëwee yow laa ko defal. mu ànd ceeg koo xamante ne moo nekkoon suñu cadre muy grand pâté euh, tey ñu dem ba wasaare dugg ci cent mille abonnés xëy na sax bu bu wasaare tolloo foofu yéen mbëri la ndax mënuñu dem sans yéen tey boo gisee loolu moo waral tey ñu dalal la remercier la ndax taxawaay boobu nga xamante ne taxawoo. waaw jiili c'est que sa amaana seen liggéey rafet rek fii moom mënoo def lu rafet li am lu ñaaw boo defee lu rafet da am lu rafet boo defee lu ñaaw am lu ñaaw. lii sax bëreegul war na double ay cent fois parce que li ngay liggéey rafet na xam nga li ngay commentaire toujours daay dañuy gis li ngay wax toujours kon loolu rek macha allah quoi moo tax nit ñu bëri nañu mbëri si boppam dañuy sawar di def ak yow émission xam nga te loolu rek dafa nice waaw sa liggéey rafet na daal. waaw man it dama lay ñaanal nga doon roi des arènes parce que yaakaar naa ne loolu suma sakk lay doon abu Ndiassé mi nga xamante ni moom laa njëkk jël émission ñu tourné ko man ak moom moo doon tey roi des arènes nga war a fas yéene dem këram xool vidéo abu démb xool vidéo abu tey maa ngi la koy ñaanal yàlla na la ko yàlla defal. amiin amiin amiin yow it ñu xam ñu lay ñaanal li nga bëgg yaa ko xam xam nga cent mille cas dafa ndaw waaw yéen da war am ay ay mili mi ay xaw ma ñu koy waxee ay millions yi millions yi cas ndax jàmbaar nga. affaire moom bu sa liggéey rafetee li ma koy wax rek saa su bu ragal dara ndam rek ngay am barke sëñ Touba aja bàyyi ji yow jàmbaar nga bilaahi yow de maa lay siyaar xam nga tey nag <laughs> ci liñ lay dugal woo xam naa ne biru biru gën man ah. laa gën a man yow dañ lay jaajëfal baax xam nga lee la ñuy wax cent mille abonnés ah. hmm. mais stade bi ñaata nit ñoo fay dugg. stade bi ci nekk ci pikin 5000 20000 mooy ñaata. ñaar fukki junne. walla ñeen fukki junne. kon yow léegi mocce ba. maanaam dugal nga ñooñu ci stade ba. loolu rek bi ma ko déggee loolu laa calculer loolu nag yombul de moo tax xale nga toll ba abone dem si 100000 abonné. yow ak Ouzin Keita vraiment euh, gàcce ngalaama rek kon yéen a xam fu ngeen bëgg a yegg yéen leen yan leen fa yàlla yeggale mais góorgóorlu rek parce que ay ndaw ngeen am ngeen jom am ngeen fit te micro bi fite koy yóbbu fit moo koy yóbbu te maa ngi lay siifur toujours say wax waddu nga ko macha allah am nga teggit ne ñu bari foo jublu ñu naan si euh, jili wasaare xam nga loolu rek si la boo xam ne bu am solo la kon euh, ngeen góor góorgóorlu bu baax rek te xam ne lépp ñëpp nga du leen ni kenn euh, ay ndam yàlla si tegu man vraiment kontaan naa si trop macha allah ak équipe bi nga xam ne ñoo fi nekk yàlla na yàlla suturaal leen. kaay ñuy waxtaan sama sama sama kook sama kii kii kaay nii kii kii mooy cadreur des cadreurs man maa ko tuddee la cadreur des cadreurs mooy Adama vraiment ñu nekk ci làmb ji yaakaar naa ne dëkk yu nekk dem nañ fa ci làmb lu ne liggéey nañ ko ci làmb image bu rafet bu ngeen gis ci wasaare moom mi bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom dañu ànd démb lañ mujjee xuloo dëgg la wala dëgg. waaw loolu de am na. chaque jour dañuy xuloo ci liggéey bi. loolu moom chaque jour yaa may tooñ. <laughs> léegi bu nekk loo xamante ne vraiment yow laay félicité parce que vraiment liggéey bi xëy na nekk na ci ay moment yoo xamante ne euh, day metti day tar parce que affaire góor la mais nan nga gisee tey cent mille abonnés yi nga xamante ne lamb am na ko bu fas yéene liggéey bi doo ko commencé kon ñu fas ay jëm ci un million abonnés. cent mille abonnés. Hmm. wax dëgg yàlla xeeb naa ko quoi. moo tax fet bi nii. Hmm. gisuma sam bopp quoi. parce que man visé wu ma ay cent mille abonnés. nga bëgg ñu dem mais million bi. or bi laa bëgg ñu dem jëli. or waaw ay cent mille lii nii. Hmm. nañ kii nii rek. kon gis ni ñun dañu war a gën a. non ñaax la quoi dañuy gën a. lii moom. Hmm. du du lu rëy si man quoi. Hmm. lan ngay wax ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy suivre wasaare di commenter di la dooleel di gën a jàpp ci liggéey bi lan nga leen. waaw ah, mais ñoom lépp ñoom la. Hmm. ñoom ñoo tax ñuy gën a sonn. ñooy tax ñu ñoo tax ñuy reyante quoi. bu pour pour ñoom lu leen neex rek des fois nga dégg say ay commentaires yoo xam ne du la neex mais da ngay xam ne ñii dañ bugga lu baax rek moo tax ñu moo tax ñuy wax loolu quoi mais loolu kese la ko mais yow tam maa ngi lay jaajëfal bu baax yow sama waaye nga on compère ana Ouzin Ouzin Kaay <laughs> Ouzin Kaay Ouzin Kaay bul déglu lool <laughs> waaw yow yàgg nañ tey gis nga liggéey bi nga xamante ne liggéey nga ko ci wasaare vraiment ba mu toll ko liggéey nga ko parce que yaakaar naa ni euh, équipe bi yëpp mënul dem sans yow Adama indi dala trophée bi Adama jox na trophée bi yaa ma ko njëkk laal yaa ma ko njëkk a gis dégte la ci ci ci yow sama waa ji lan ngay wax waaw kontaan rek kontaan rek ndax euh, képp kuy liggéey ku nekk ñaan nga yàlla mu avancement te defe naa ne euh, li ñu waxoon rek defe naa ne bi bi bi bi bi bi weer bi di doog dee bi ñuy feetu dañoo waxoon liggéey baa ngi doog a commencé defe naa loolu la ñu waxante woon euh, defe naa ne bu liggéey doog a commencé nag li topp ci euh, bu liggéey bi doog a commencé topp ci defe naa ne sas la sas la te day wane ne ñoo ngi doog a commencé ndax bi ñuy waxtaan keroog loolu la ñu wax dañuy doo ko commencé ba nga wax ba su ma juumul bi mu waxee bas waxee loolu da nga ne ko xanaa kon bakkan nga bëgg mm-hmm. waaw defe naa ne nag euh, lii moom euh, dañoo dañoo sas mm-hmm. kon war nañoo mën a gën a liggéeyaat di wax na nag gars yi nañ ñu xaar gars yi nañ ñu xaar parce que lii tamit du daa mm-hmm. xëy na peut-être réy na ci ñu jox ñu ko ñu wan ko askan wi wan ko wan leen ko ne ñoo ngi ciy jàpp bu baax a baax mais lii maanaam du daa ci ñun defe naa ne bu xonk lañ gën a soxla ko waaw di wax nag gars yi nga xam te ñooy seetaan Wassare ñëpp képp ku seetaan na nga te xam nga di di di commentaire di gën a di ñu gën ñaax daal ndax képp kuy liggéey ku nekk bëgg na ko ko wax waa góor mm. fas moom lu mu daw daw daw daw dees na ko làbbali waaw tey moom xam naa ni ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp dañu ciy xaj euh, sa mbër mi sa invité bi ñëw na léegi bébé garga kaay bébé garga kaay ayca ah ayca na solo teewal waaw kii nag yaakaar naa du man maay wax Ouzin kaay taxaw nii nga présenté mbokk internet di kii mooy kan euh, ñëwal. mbokk yi gis ngeen comme ni ko Baye ji defee sànq ak ki nga xamante ni mooy abu Ndiassé defe naa ne sama première émission bi wasaare moom mii laa dalaloon ndax euh, li gars yi di wax ak gën a jege gën a yay ndax biñ ne ma defal sa première émission. donte noonu na loo xamante ni diisoon na ci man wala boog yenn woon naa ko comme ni ma ko mën a waxee. waaw pression bi bàyyi woon na ci man trop xam naa bu ma waxee bi may bi may bi may ni ma ko defee woon ñi ci bàyyi dinañ ma ci mais moom mi mu nekk koo xamante ni xale la boo xam te ne xam naa lu bari ci moom ba tax na bi ñu waxee sa première émission man a xaama dem jëli ko yaakaar naa bi ma koy njëkk a def émission bi doonoon na lu metti ndax yendu la woon man ak moom defe naa ne dem nañ géej jóge fa dem saal jóge fa demaat fan Sacré-Cœur jóge fa dem sa kër dellusiwaat parcelle dugg ay kër yu bari yoo xamante ni ñu def ay témoignages ci moom lépp rek pour bëgg a wane ne mbër li muy daj wala boog li nit ñi di daj ci moom ba tax na moom mi laa dalaloon ci émission boobu noonu euh, ñu def ko yaakaar naa ne mu am ci mu am ci mbégte ndax boobu tamit làmb ji taxawagul woon ba tey ñu jox ñu trophée bii nga xamante ne moom nga téye lan nga ñuy wax ak loo ñuy ñaanal. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp ah di nuyu di la nuyu di ziar yi waa lii nag du gulet quoi du gulet parce que li Tarba Mbaye doon wax naan ñefal ñefal waaw ah. ah, du gulet ah, day te day gën a metti rek ci gars yi waaw ñoom nañ teel a ñëw jébbalu rek te xam ne day gën a metti ndax gis nañu wasaare ba bu ñëwee ba tey maanaam gis nañ yeneen sites dañuy topp mbër yu mag yi kase kase kase mais dañoo gis wasaare bàyyiwul kenn Balla Gaye ak mbër yu ndaw yi la yemale ñëpp lay jëli kon dañuy lii dañuy ñaan yàlla mu law te yàlla bu mu fi gëj tamit yàlla na doon ay ndami waaw Ouzin nag moom borom baax la dafa baax rek di wax waaye lépp moom la barke alxuraan lépp moom la moo jiili mi waaw yaa damay ñaan yàlla kër gi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def sutura waaw. Euh, comme ni nga ko waxee ni ñu ko ñaanalee noonu la koy ñaanalee parce que defe naa ni bu ñu la njëkkee jël euh, suñu émission dañuy ñaan yàlla fi ñuy dégg mbëri ñu la fay dégg parce que loolu suñu fierté lay nekk boobaak léegi nag yaa ngi def say say say say say say say euh, nu mu tuddee waaye say preuve ci làmb. sa xel fan la nekk ci làmb ak fan nga bëgg a yegg ci làmb. waaw sant yàlla rek. sant yàlla ñun mënuñu dara. waaw dañuy comme que suñu borom teg nañu loxo ba ñu yegg si ba fii. dañuy ñaan yàlla. ñu yàlla yóbbuñ ci kanam. fi ñu teg suñu bët ñëpp xam nañ ko. ñun xam nañ ne ay ndaw lan mënuñoo jeexal booy yëpp ci làmb. kon nan nu jox nan nu jox grand frère yi. ñu jëflante ak ñoom rek. mu jeex mais bëri na. sama frère Abou Ndiaye dama may sens. ah waaw pourquoi pas mbër la may Abou Dia ji li moom la njëkk a jël yow yaa a ngeen tase fi. loolu garaaw la. lamb la. lamb la dama may sens. Abou Dia Abou de yaa ko déggandoo. ah. ñoo ko déggandoo de. waaw. <laughs> léegi nag non defal naa ko balaa maa dem faaw ma jam parce que jam li ma yóbbante ñëw ma ko wax garaaw nag tungu na teew ñu <laughs> moom sax ñëwoo koo wax. ñu leen di jaajëfal bu baax kontaan nañ bu baax a baax Abou Ndiassé kaay Jam yow taxawal. Jam àdduna ñoo lay seetaan. nit ku baax nga. xale nga boo xamante ni mu la xamee ba léegi ci liggéey laa la xam nga nekk xale maa yow yàgg nañ ci jamono bi nga nekk ci fan sa club yor euh, carte li nga xamante ne mooy carte membre amateur dem ba tey yor licence promoteur euh, liggéey wasaare bokk nga ci ñi ci jàpp. parce que bu wasaare mosee génn voyage bi njëkk génn dem Gambie yow yaa ñu yóbbu vraiment ñu lay jaajëfal bu baax tey ñu ngi dugg ci cent mille abonnés lan ngay wax mbokk internet yi ak yow ban ñaax ngay gën a ñaax wasaare ngir ñu gën a yokk ci góorgóorlu ci liggéey bi. waaw Djily maa ngi lay ziar bu baax di la nuyu di nuyu ñu fi teew yëpp lii nag moom mbégte njabootu làmb yëpp la ndax da ngeen ne wasaare créé wasaare làmb mm. ñëw bay seen waar ci làmb kii wax na ko léegi bébé garga xàmmewu leen mbër bu mag ak mbër bu ndaw xàmmewu leen amateur bu mag amateur bu ndaw ñëpp ngeen di jël. di nekk ci lu jëmale làmb kanam tey bëri na promoteur yu ku tëgg làmb fii sa bande annonce parce que wasaare ñoo koy defar. bas mi moo koy def moom tamit ñu ngi koy félicité bu baax a baax. lii nag ñaax la pour yéen. waaw kom li Ousseyn wax saa kii Adama wax na ko ne moom. Mm, lii xalaatul lii moom dafa xeb lii. Mm. loolu nag ngëm-ngëm ci la bokk. Mm. da ngeen jàpp ëpp lii ndax yéen a ngi koy liggéey ci réew mi waaw wax nga ko sànq man samay partenaire ngeen yàgg nañu ànd fu nekk seen première journée ñu dem Gambie man ak yéen ñoo ànd boobu xam naa ne 15000 15000 abonnés est-ce que boobu amoon nga sax 15000 abonnés. 4000 lañu amoon 4000 abonnés. 4000 nga jël risque mënoo oto. jël ñoom bas yëpp yóbbu leen ci oto naan dégg nañu yóbbu Gambie xam nga foofu lu ne mënoon naa xew waaw waaye gën nga gën a xam fi ngay teg sa tànk man moom conseil bi ma lay jox mooy pour li bébé ga wax nga yegg foofu am na yoo xam ne dinaa la ko tere na nga fexe noo ko bàyyee. <laughs> non sànni ma la xee sànq yaa ne bi may nekk ci fans club da nga juum da naan bi ñuy nekk ci fans club waaw man ak naan bi nekk ci fans club waaw di la ñaanal nag yàlla defal la ci lu kawe sa njortu. di ñaanal tamit DC Babou ñoom paate képp ku nekk wasaare ñu lay ziar bu baax a baax a baax ngeen dem ba nekk premier site ci réew mi waaw waaye nag nga boole ci di bàyyi sumeeku yi ngay def di wax appel vidéo guddi gi di naajo yow del gën a a xëy del teel a xëy temps yi onze heures ngay xëy dix heures minuit midi ndax doo neraw ba 6 heures suba da ngay def appel vidéo bàyyi ko ngir yàlla loolu laa lay ñaax. jërëjëf ba waaw amul doomu bàjjan dama koy comprendre moom man maay sànni kat man lay sànni xeer. mu ngi nii abu yegsil mu ngi loolu ah, trophée baa noonu kii nag ma ko jox yaakaar naa ni wax naa ko sànq ci biir wax bokk na ci mbër mi ma njëkk a jël yàgg naa ko suivre ci làmb muy def liggéey bu am solo boobu jàpp ma ni woon sax dinaa dugg ci ci milieu làmb bi ma ñëwee yàlla suñu borom dogal du man maa ko kale dañ ma ko kaleel te xaw ma sax ku ko kale mais jour boobu paate laa àndaloon dem jëli ko moom Abu Ndiasse ma fekk ko fi nga xamante ni fa la juddoo yaroo fa màgge fa muy jàmm ñu waxtaan lu bare bari ci làmb boo xoolee image yi démb xool image tey nga xam ni coppite am na ci ñaari nit ñëpp te maa ngi ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne mooy kàttan yàlla kàttanal ko ba mu doon roi des arènes trophée baa ngi noonu yaakaar naa sa trophée la ndax yaa ko indi. waaw trophée bi suñu ndam la ñun ñëpp. Mm. waaw xëy na du neex wax nag. sa ndam la ndamu équipe bi la. Mm. xam nga ndamu ñi fi liggéeyee ñëpp la. Mm. rawatina yow ak gars yi. ñoom Ousin xam nga. man daal li may wax rek di leen gën a ñaanal xam nga fi ngeen teg seen loxo daal foofu la ndax liggéey moom buy liggéey buy avancé rek mu ngi dem quoi mais mais bu avancé wu rek demul te li yombul li yombul de sud yi bëri nañ nag waaw kon xam nga yàlla na yàlla xet dooli daal waaw li si kanam nag xam nga dàq sax li fi jot a jaar nii waaw waaw diiree jàmbaar nga de waaw yow bu ragal dara yàlla bëri na sutura waaw yow jàmm si yow rek jaajëf gaynde waaw waaw waaw léegi kan moo des sëñ ah bas ah bas kaay na bas ñëw ah kii wasaare ni ngeen koy gisee yéen ñu ci bare bari da ngeen di gis wasaare bi ni mu mel mais gis ngeen wasaare bi nga xamante ni euh, mooy wasaare news bi ak wasa ak ak 3W euh, point wasaare. wasaare point euh, merci moom mi moo ko yor vraiment acti euh, actualité yu bare bare bare moom article yi moom moo koy bind moom mi nga xamante ne mooy Omar ñu koy jaajëfal bu baax gis nañ ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne yaa ngi koy def 100000 abonnés nga dugg lan ngay wax. waa je pense que ne liggéey de longue haleine la lu yàgg la tey jii nii. doo gisee Sénégal comme bas ni ñu ko doon expliqué sànq bi may ñëw Wassare Lamb fekkoon na fi tamit benn situation moom ak góorgóorlam ak abnégation am ak volonté comme li ma baaba wax démb euh, affaire du bëgg-bëgg maanaam lu dem rek euh, détermination ak volonté da ngay atteindre say objectifs moom mu ngi koy teg si yoon am ngeen ay concurrent nag maa ngi ko doon wax sànq si innovation yeeg ak euh, réadaptation yi parce que tey jii làmb dafa évoluer évolution bi dafa war a feeñ si jikko yi si kàddu yi ak si technicité ñi koy présenté tey jii làmb nekkatul la ngay ñëw rek jël mbër bi mu daan mu ñibbi nga ñëw laaj ko loo def ba daan mu wax c'est-à-dire comme Bantamba lu mu def. doo seetee moom bi muy ñëw dafay fekkoon benn environnement ba nga xam ne amuloon woon seeti mbër amul woon fekk mbër këram am amul woon loolu yëpp mais moom dafa ñëw révolutionné indi tous personnel am si làmb ji. egg euh, nañ cent abone di sant yàlla di leen sant di sant tamit euh, ñi fi nekk ñëpp muy mbeen ak ñëpp ay seen ak gaa yëpp mais li li wérte woon mooy il faut révolutionner il faut innover à chaque fois technicité ñu ngi koy xaar si présentateurs yi muy yow muy Ouzin c'est c'est pas que ni kii da ngay ñëw rek ah, di wax mbéy bi noo daanee nii nga daanee na non non à chaque fois il faut cesser quelque chose ba nga xam ne les gens vont se dire ils ont information mooy lan la technicité dëgg dëgg dëgg dëgg mbër bi nu mu def ba daan cest à ak moom tamit environnement familial am environnement personnel am lépp na la koy dundee man foofu laa leen gën a xaare ngeen mën a raw seen ñooñ parce que lu tuvi mu ngi fii yeneen ñi ngi fii c'est la même chose mais cent mille bi nag c'est pas comme ni ko Adama waxee c'est pas quelque chose de glorifié loo xam ne tey jii mën nga ne lii xam nga tax nañu egg fii wala fi ñaan naa yàlla d'ici deux mille vingt ak site beeg ak célébrité comme ni ma ko waxee bas célébrité ak société ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi si ginnaaw ñu euh, romb ay 3 millions wala 4 millions d' parce que mën nañoo tëb état bi. Mm-hmm. parce que benn vidéo rek doo ko dugalee comme làmbaloog doo calculer analytique bi man dama koy suivre si instant boobu dépassé nañ plus de 100000 dépassé nañ plus de 20000 30000 abonnés si semaine boobu noonu. Mm-hmm. nañ jéem a innover chercher les xam ne ils les gens. loolu laay loolu laa leen di ñaanal di leen ñaan di leen wax nag wasaare news point com mu ngi fi toutes les informations la boo leen am boo xam ne exclusivité la. lii bind article yi nu mu tudd lii bind article yi nu mu tudd. mooy wasaare news point com. waaw doo leen ko wax tamit si seen seen communication pour nit ñi mun a dem di visiter. yow article yi lan nga fay bind lan ak lan waaw man nag damay sukkandiku à chaque fois si wasaare lamb bi kii lamb lamb lamb ji. si laay sukkandiku ak yéen vidéo yi ngeen def parce que yéen vidéo yi ngeen def c'est pas quelque chose bu bu basique. à terre parce que doo duggee Lutte TV la plupart du temps yeneen scènes yi yeneen sites yi dañuy reprendre seen seen seen seen i contenu moo tax si contenu yooyu laay basé wu parce que site Wassare comme ni ma koy waxee c'est-à-dire nekkatul instant bii li nga xam ne euh, da ngay dugal loolu dugal dañ koy dañ koy seetaan parce que da ngeen xas ba am seen. Euh, personnes basiques mooy ñoo xam ne vitalité bi maanaam vitalité baa ngi foofu mooy. am na solo cinquante mille a waaw di leen a affaire bi gën a dem. ñëpp gis seen bopp. wasaare ñu célébrité ak euh, société. merci. Ndeen Kaay. Ndeen séeréer bu nice. Ndeen séeréer bu kii. maa ngi lay maa ngi lay kontaanee bu baax sama séeréer bu nice bi boobu euh, am na vidéo bu ma gisoon nga jël jabaru Bass Thioung vidéo boobu vraiment bokk na ci vidéo boo xam ne sénégalais yëpp bëgg nañ ko TikTok bi boo duggee gis vraiment image yooyu mu nekk loo xamante ne vraiment dañ lay féliciter nga dugg ci cent mille abonnés nekk jigéen séeréer bu nice macha allah ban yëg-yëg nga ci am lan ngay wax waa kër ga. d'accord kontaan dëgg jii li man xele laa waaye ci yéen laay roy ma leen di féliciter yéen waa Wassare Lamb di félicité aussi ñi nga xamante ne ñooy seetaan li nga xamante moo di site bi parce que jënd sa connexion di seetaan rek loolu kenn mënu laa mais yéen aussi ay jàmbaar ngeen ay liggéeykat ngeen instant yi waxandu wasaari làmb jiili moo ko moom wala Ousin moo ko moom mais dañu naan wasaari làmb Sénégal ñoo ko moom parce que sénégalais yi ñoo leen bëggal seen bopp ñoo leen ci ëppale d'accord gis nga loolu lépp li leen ko may mooy ngeen nekk ay xele nangoo tànk parce que gis nañ lu baax li ngeen di def dañ leen di félicité bu baax a baax daal di leen ñaanal ci kaw ci kanam ci lu baax. waaw. ma ñaanal la. soxla man kay jili fi mu nekk nii. ñi seetaan wasaare làmb te concentré wu ci wasaare làmb ji bu ngeen xamee sëriñ bu dëgër comme làmb yi am nañu sëriñ yu dëgër ñu xoolal ma sama jàmbaar bi ba xam lu doxul lu lu manqué daal parce que ñun tamit bëgg nañoo làng daal. <laughs> jaajëf maa koy jaajëfal bu baax a baax moom benn euh, seen kaay seen ku ci nekk ak sa problème ñii nag des fois dañ lay solal ji lii ak seen trophée bi moom sa trophée la. sama sama trophée la woon. Ah. trophée ah, waa wasaare yëpp la donc avant ça maa leen di félicité bu baax a baax waa wasaare lamb ak waa wasaare groupe yëpp. di félicité tamit baabu parce que moom tamit lépp moom la di félicité Basirou. ak euh, directrice. ñoom ñëpp maa ngi di félicité bu baax a baax. dugg nga ci cent mille abonnés mu nekk ñaax boo xamante ni YouTube defal nañu la ko gël la ñaax. Euh, di la encourager di la gën a motiver pour que nga gën a mën a góor góorgóorlu bu ñëpp joxee seen xalaat yow ban xalaat nga ci am. ba comme ni ko Aada waxee woon sànq objectif bi pour man du du du du cent mille vues maanaam du sax ay un million mais pour man objectif bu gën a mag mag man pour man télé la télé Wassare Lamb amatu amagu Sénégal ñu wut benn télé boo xam ne ak comme nu RTS wala DS boo xam ne spécial lamb lay teg pour man Wassare Lamb foo la war a dem d'ici deux pour man loolu mooy objectif bi mais pas ay 1 million wala ay pas parce que Sénégal boo gisee fii ñu bëri peut-être am nañ 1 million donc loolu nekkatu objectif bi pour man mm-hmm. maintenant objectif bi mooy maanaam télé. Mm-hmm. merci beaucoup. ci ñaan boobu. Euh, Faa Kaay. ñii lan la ñuy tàcc. ñii lan lañ tàcc rek. <laughs> maa leen neex loolu moo tax. faa faa mii la ngeen bu taxaw. faa mooy bi nga xamante ni moo leen ci wasaare bi waaye teewul lépp loo xamante ni gis ngeen ko ñu koy dem ci làmb rek bokk na ci ñuy coordonné. des mu woote ñu bañ ko jël. des fois mu woote ñu coupé ko. des fois mu woote ñu pare ciipatu sax wax dara ci xel loolu xam ne rek yaa ma gën a xam ñu ngi lay féliciter parce que yaakaar naa ne raaya bi moom sa raaya la ñu lay féliciter yónni nga ñu ñu dem waaye indil nañ la lii ban yëg nga ci am ak ban kontaante nga ci am. kontaan rek ndaxte lii moom dama koy jël rek delloowaat leen ko tegaat ko seen loxo parce que mérite bi yëpp yéen la revenir franchement ndax liggéey bi ngeen liggéey ak pastef bi ngeen am ci liggéey bi bu leen neexoon fii bu ñu leen woowee ngeen dem bu ngeen demee stade def lu leen neex reporter lu leen neex ñëwaat du tee ne dinañ dugal vidéo yi mm. mais kon nit ñi seetaan duñu abonné ci seen compte te dinañ dem seetaan yeneen sit yi nga xamante ne ñu ngi def comme yéen mais yéen liggéey bi di ngeen koo jël teg ko ci yoon bien vrai que ni parfois ma woo leen ngeen déconné genre Ouzin bi ma woo ko mu ne ma maa ngi ñëw duma ko gis <laughs> ak yooyu yëpp da ciy xew <laughs> mais daal vraiment jàmbaar ngeen. ma coupé wax dara ci xel de. Ah, ah, ah. wax dara ci xel <laughs> wala nga ni ma faa tey moom damaa sonn tey duma dem. <laughs> wax dëgg neex yàlla kontaan naa trop ci lii maa ngi ko jël di ko teg ci loxo Bas mu jël ko teg ko ci sa loxo teg ko ci loxo Jili teg ko ci loxo Adama Ousin. Mm. ngeen jël ko jébbal ko baabu franchement kontaan naa trop si yéen. Mm. ah xale jéeme waa xale jéeme. bu baax a baax <laughs> xaalis transport bi yéen a ko yor yéen a tax mënatu a yor dara. <laughs> bilaay xaalis transport bi yëpp jox naa leen ko ay Ousseyn bi Ousseyn dama def may laaj transport ba pare tourné dama joxoon ma woon ma joxaat ko te yàlla. waaw léegi mais Faa instant YouTube. Hmm. xanaa coppal nañ la dara. YouTube ah. waaw comp bi yéen lañ <laughs> baa ngi nii. <laughs> xaalis ànd na dara ci baa ngi nii. Ah. yéen lii rek mbégte la ci la gën a kontaan. jaajëfal bu baax. Kaay Ibrahima Kaay. ñi fi jotoon a ngi lay siyaar bu baax. vraiment bi nga ñëwee ci làmb daanaka bi nga ñëwee ci wasaare làmb bi. Euh, yàggul waaye liggéey nga ci liggéey bu am solo yaakaar naa fi ma jaar ak say moroom jaar naa fa ndax jot nañu laale sax ci liggéey bi loolu yëpp bëgg liggéey bi avancé tey boo boo yoree lii bokk nga ci ñi ci liggéey ban ban yëg-yëg nga ci am ndax wasaare moom li may wax rek ki ñëw 1960 ak ki ñëw tey ñoom ñëpp ñooy même pied d'égalité ban yëg-yëg nga ci am. waaw kontaan rek mbégte rek euh, d'abord di féliciter Basirou ak Fa mm. surtout yow ak Ousin aussi. mais du ma fàtte Adama parce que bañ ñëwee daf ñu yaatal mënoon nañ ñëw mu xatal ñu mais dañoo ñëw mu yaatal ñu lu ñu kii mu war ñu ba yàlla def tey lii fekk ñu fi donc dañ koy sant yàlla rek waaw mbégte rek ak kontaan mais comme d'habitude damay topp si lu mu wax rek séentu nañ ci ay millions yu millions bi mun naa ne tudd la rek ñaan nañ ngénte am ay doom yu bëri incha allah donc ñu ngi séentu yi daal mm-hmm. aw yi premier pas rek mm-hmm. premier brique bi lañ tabaxaguñ daal. te yow fas yéene nga gën a ñëw yokk affaire yi comme ni ko li ko li ko gars yi. non ci yére bi moom parce que bu ñu xoolee début bi métti woon na. Hmm. defoon nañ ci ay papet fi ay vidéo mais taxul ñu daw. Hmm. ñëw nañ gën a sëgg nekkaat ci liggéey bi hmm. donc bëgg nañ ko en fait. kon du ñu dellu daal ñun ay xale lañ ay ndaw lañ. dañoo nangu nañ def ay erreur pour après ñu mun see jàng ay leçons. waaw ah instant yi daal ñu sant yàlla. jaajëf. <laughs> am walla looy de waaw maa kontaan rek. lan la kontaan loo. parce que le fou ñu tudd moom moo kontaan loo quoi. yow wasaare gépp ñu boole la tuddee la le fou nga kontaan ci le fou bi yow le fou nga kontaan. waaw dama koy nangu parce que man maa le fou bi parce que le fou daf may jàngal lu bari comprendre nga waaw. fecc waaw fecc ak def yëfu dof rek. Ah, tey nag c'est moment boo xamante ni da ngay fecc tey moom gis naa ni mbégte sax am nga ko lii boo ko téewee. ban yëg-yëg nga ci am nekk ci équipe di ci góor góorgóorlu di ci liggéey liggéey bi yombul ban yëg nga am ci. waaw lii moom contentement rek laa si am. waaw mbégte bu rëy rëy. parce que euh, jafe na jafe woon na jafewutoon quoi parce que commencement bi def naa fi ay erreur yu bëri ànd ak naa Ouzin mi dem interview fàtte caméra fàtte carte mémoire bi loolu yëpp ay jàngat la woon mais tey bu ñu demee tey ba euh, aada yoon bi ak bas mi nga xamante nii mooy loolu borom baax la ak faa waaw loolu yëpp dañ koy nangu parce que tey xamoon nañu ne tey euh, lii lañ ñu bëggal ah, bëgg nañ ñu ñu romb fii sax instant bi damaa kontaan ba mënu maa wax sax. Hmm, waaw yaa ma gën a xam dégg ak laa def. laa <laughs> dof dof lu. wala def affaire fuu fuu. non non loolu fuu bi bàyyi nañ ko yemale si bureau bi fii rek. du du yegg làmb parce que làmb ji am na ñu ma gën a dof ñu ma. dof dof <laughs> laa bëgg ay dof dof lu foo. waaw waaw loolu day am incha allah bu neexee mais nag maa ngi ziar ñëpp. waaw mënu maa lim parce que bu ma limee demee juum. wasaare gi daal jàmm ju fi nekk ki mu ko nar a ku mu ko nar a yàqal yàlla na ko yàlla yàq ndax wasaare yëg naa sama bopp bu baax a baax parce que nit foo nekk am fa jàmm rek am nga lépp waaw wax dëgg fa yàlla jaajëf sii di am na solo Cheikh Mbacke Balla waaw sëñ bi sëñ bi Balla Aïssa maa bu baax yaa ngi ci religion bi vraiment di ci liggéey liggéey bu am solo mm-hmm. Mbacke Balla bu ñu la gisee nga toog foofu vraiment dañuy xam ni toog nga fi nga war a toog tey ñu dugg ci cent mille abonnés mm-hmm. ci wasaare làmb ji ban yëg nga ci am ak bi nga ñëwee ci wasaare nan nga gisee liggéey bi. waaw mbégte ak bànneex ak fierté ndax tey mbégte bi gën naa ko am yàgg na 2010 laa gën di am mbégte bi mm-hmm. mooy ba ma sama papa yeeyee na ma xaadi majeur nga. boobu laa gën mi kon nay kontaan ndax tey lii ñun ñun xeet nañ lii barki Cheikhul Khadim xam naa lan la leen bëgg fi mu ne maam canal télé yëpp dañuy dégg daf ne ñun ñuy dégg na bàyyi nga ne wasaare moo teg tànk ci dëkk bi xam nga lool hmm. ah? ah maam àdduna ñoo koy waxtaanee àdduna mu loolu nag ku metti nag moom da ngay daal di nalaw yi xam ne suñu borom moo ko nangu suñu borom moo ko dogal image rafet suñu borom jox nañu ko animateur yu yaru yu am respect suñu borom jox nañu ko te fii tey naa ba mu fi ñëwee yàggul waaye maam daf ñoo daf ñoo jëlee kaw barki Cheikhul Khadim bu ñu gisoon télé boo xamante ne mu ñoo fay un million am amuñu fa respect wala am toog fu ñu war a teg duñu fa toog ndax ñu yëg la ñu jàppee aadama ak fonk barki Cheikhul Khadim waaw loolu daal lañ am mbégte tey kontaan nañ fierté bu baax a baax ma leen gën a ñaax mooy maam ñu gën a yokk liggéey bi ak animatrices yi gën a jox respect nag animatrices yi ndax fi mu ak benn ñoom suñuy yaay lañu suñuy tànta lañu tey moom ñu ngi koy ñaanal tey mu am borom kër bu baax tey te xam naa ne moom tey nit tey jigéen dëkkul fenn tey ñu ngi koy ñaanal borom kër bi nga xamante ne day bu ñëwee ko bàyyi moom mu àgg bi nga xam ne moom bu soobee moom day daal di metti wallaay wallaay ndeysaan wallaay sa kontaan bu baax a baax a baax kii nag Ousmane Ousmane bu ñu ko waxee nga xam ni mu ngi nekk ci Dakar Midi vraiment di fa liggéey liggéey bu am solo ñëw na ci wasaare daanaka mun naa ni DG Dakar Midi ak wasaare presque benn lañu mu nekk loo xamante ne vraiment bi nga ñëwee wasaare nan nga ko gisee ak trophée bi nga xamante ne jox nañ ko wasaare. ah waaw trophée bi moom xam naa ne man. nekkuma wasaare mais maa ci gën a kontaan sax waa wasaare. ndax euh, dafa am particularité bu ma gis ci wasaare làmb. muy wasaare làmb. lépp luy jëm ci làmb ndax euh, site yu fiy def YouTube yu fi chaîne yu fiy def li làmb bari na. mais man sincèrement li ma gis wasaare man gisuma ko si yeneen chaîne yi. que wasaare làmb lépp luy jëm ci làmb amul bàyyiñu si dara. mbër buy doog a commencé tey tey sax bu leen woowoon fii bët frontière senegal fu mu jeexee wasaara làmb dañ fay dem mm-hmm. te dama ko seetlu ñoom bàyyi ñu mbappat bàyyi ñu seen yaa ngi fi mbër bu siwul duñ la jël mm-hmm. euh, làmb bu amul ampleur duñ fa dem mm-hmm. xam la man mi di wax ak yow seen laayor mais làmb sax su ma fa demoon grand combat laay dugal sama yoon nekku ci li ci des du ma ko dugal mais wasaare làmb lu mu ndaw ndaw lu mu mag mag wasaare du bàyyi dara te wasaare cent mille yi cent mille abonnés yi ngay wax man gëm naa ne wasaare gisaguñ dara lii du dara cent mille abonnés pour man du dara si wasaare ak liggéey bi wasaare làmb di def cent mille abonnés sax dafa ndaw si wasaare làmb man gëm naa ne un million yi ngeen di wax sax bu soobee yàlla di ngeen ko romb parce que man damay nekk fii wasaare di gis waaw wasaare ni ñuy liggéeyee surtout ci làmb ji waaw liggéey bi amul benn caaxaan may gis fii ay reporteru làmb wasaare xëy fii huit heures di wër ci làmb ba zéro heure te lépp ci làmb la ñuy dox bàyyi ñu làmb bàyyi ngeen traditionnel bàyyi wu leen dara ndax chaque jour ngeen voyager fii sama kanam chaque jour ngeen voyager fii sama kanam kon boog lii maa ngi ñaanal mu gën a yokk te man gëm naa ne day gën a yokk incha allahu rabbi waaw maa ngi ñaanal di ñaanal waa wasaare yëpp waaw kontaan naa ci waa wasaare parce que vraiment mu fi ñëw chaque jour. mais gisuma fi dara dara dara lu ñaaw. wala loo xam ne ñu ñàkk fayda liggéey daal laa fi gis. te su ma fi doon ñëw aussi gisuma fi liggéey. du ma fi ñëwaat ku ma xam. xam ku ma xam ma xam ma si loolu. mais dama fi gis liggéey gis fi sérieux te 100000 abonnés yi bu soobee yàlla du yàggatul dara. bu soobee yàlla dina gën a law maa leen di ñaanal daal lii daal mu doon lii daal mu doon profet bu njëkk. te mu doon te yàlla bu mu doon bi mujj bu soobee yàlla. waaw loolu laa am lu ci wax. jërëjëf baax a baax ñu ngi koy jaajëfal moom it. Hmm. nee <laughs> jour anniversaire. dama mën nañu daggee gâteau quoi. léegi bismillah. gâteau bi am na soxla. adama. bismillah waay loo. donc maa ngi lii verre la. lii du verre la. léegi problème bi du loolu léegi kan wante kañam si nga def. waaw loolu lay wax ji nag. léegi kan wante. non mais de dafa naan mbëri njëkk a ñam ñoom ñoo njëkk a tourné. waaw mbëri njëkk a ñam avocat yi Ousmane Kaay. ñoo leen non ñoo leen yéen yéen a njëkk yéen a njëkk a feeñ ñoo leen. waaw na dëgg de. non dañuy ñam nii rek. yaa njëkk a ñam tekkee sa masque. déjà de kii wàllu de. waaw dana ko wéyal sax. ah yéen tamit ah. tournel tournel caméra. dama jël caméra dama jël dama waaw léegi après kan moo njëkk a def émission ci Djily ak Ouzin. Djily joxal Djily man. ah joxal aar bu soxla Djily. non non man paase laa war man jigéen rek laay seexal du ma seexal góor. Ah, <laughs> ndax ngeen ndekki sax ndekkee ko. léegi Ousseynou Adama kan moo ndekk filmé. non non joxal Ousseynou Ousseynou mooy kilifa bi man sama première émission Ousseynou laa ànd. ah. mooy sama première émission. lii neex na de. léegi nag. sànq nga ne sa booy bi bu la bindee. man de taal wàll. wala fleur yi. xanaa gisoo la benn journaliste ni ma jege. xanaa def day na de. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin oh, arrahmani irrahim maliki yawmi din iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim amin siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasati fil 'uqad Ousmane ci mooy fay xaasidin isa xasada bismillahi arrahmani irrahim qul audu birabi nnaasi maliki nnaasi illahi nnaasi min sharri waswaasi alxannaasi alladi yuwaswisu li suduri nnaasi min aljinnati wannaas alam nasrah lak sadrak wa waddaxna anka wisrak alladi anqad zahrak wa rafana laka zikrak fa inna maa al-usri yusra inna maa al-usri yusra fa iza faraxta fanzab wa ila rabbika farxab qul huwa allahu ahad allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad iza jaa nasrullahi wal fath wa rayta an-naasi yadkhuluuna fi diinillah afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawaaban kenn ku si ne na wax ne wasaare yàlla na jëm sa kanam. wasaare yàlla na jëm sa kanam. waxal leen ko ñetti yoon. wasaare yàlla na jëm sa kanam. waxal leen ko. Oustaz Seye Biti yaa danee daw. ay jam daani. mais mais. ah. li moom jàmmaar moom nee na non damay ñëw mais instant yii damay soxla nii waaw pour mu tourné ba pare jógal lan moo tax man na koy bëri na ko léegi amul danger bëri ak yow Abou Diassé amul danger barki alxuraan yaa ko bëgg def danger rek. alxuraan dem naa ko waaw. lamb moom boo demee ba. boo demee boo demee boo demee boo demee. su ma demee kee. demee kee demee kee moo nekk lii toog. non waxuma la yow. dégg nga moo tax moo tax maa ngi leen di mën a demee. waaw waaw waaw. waaw waaw waaw. ah. non kii bi ñu demoon. waaw boo xamante boo ñëwee ñu xam ne kii day xam. macha allah. boo déggoon bàyyi ma joon ci gàtt yi. waaw. non. xaw ma. waaw xale bu ma coow ma fi bëree ndax man lekk bu ñaaw laay lekk. kon mi ngi ciy liggéey. bu may lekk bu ñaari loxo yi mu laay lekk. xam sa bopp rek. man li ñu nekkoon nii. man ma taxaw. man nga taxaw man nga taxaw. non faa am ndax loolu. man la ñu nekkoon nii. Buyurun verelim. Ne derdi? Sen talim moom lañ ko jox. léegi moom lañ ko jox. moom lañ ko jox. maa ko ndox de. daa fekk ma yor indi indi ma. maa ko ndox xaaral. coono yi gis nañ. ñu ngi doon tàngaat tàngaat làmb ja. amul mu balaa. balaa ci àll. am téléphone ki mooy bas ki mooy suñu DG bu baax bi ki mooy aada bi monteur yi ki mooy suñu DG ma xale DG bàyyi noonu. DG bàyyi nii. gëj naa ko lekk maa ko wax. saree bi ñeent ma yow yaa ma ko wax moo tax ma wax ko li ma ko wax li ma ko wax xam naa ko wax waaw dégg daal li ma ko wax café ma loolu lu ma la waxoon bu ko wax na maa ko benn. xanam gu rëy gi lekk rek ngay def. non jël ma la yow bu yàq sama vidéo bi. neex na neex na. waaw. dama ko ne ay kii la bëgg mbër mu dëkk Kamb rek. xaalis baax na def baax na yàq kii. les gars ñoo ma tudd woon. ñu mënuñ ko bàyyi ak ay